jërëjëfati mbokk yi ànd ak ñun seetaan déglu ñu daal di dellu si waat ak yenn seen cabinet bio Rahma ak Rio bio nekk Tënge téléphone nekk 78 014 41 41 wala 77 244 98 05 tey nag mbokk yi dañu daal di indi benn savon xam ngeen ne saabu moom njariñam dafa yaatu saabu bu baaxee sax mën naa corriger diw gu am ay jafe-jafe moo tax saabu la borom xam-xam yi gën a farataal di ko digal nit ñi ñu ko dee sangoo rax ci dolli muy saabu bi ngay gis muy savon lumière. saabu lumière saabu la boo xam ni daanaka boo ko day sangoo day leeral yaram wi leeral der wi dundalaat ko mu dund renforcer ko li mu soxla muy collagène ak vitamine C ba yow si sa bopp da ngay sentir ne daal macha allah. savon lumière saabu la boo xam ni saa boo ko gisee nga xam ne jëmm ji saabu lumière gee ko def nii kon saabu lumière bëgg naa yow mi seetaan yow mi déglu nga daal di si fàkku teg ko sa saabu lumière mooy saabu boo xam ni taas raxas mu diñ picc mu dañ vergeture mu dañ ak lépp loo xam ni bokk ci daf koy raxas mu dañ saabu lumière mille francs lay jaar ndax pot bi 500 grammes la soo ko tàmbalee laata muy xaaj ñu wax la ne la yow daal lan ngay diw nga leen déedéet diwoo ma li may utiliser mooy savon lumière bu Biorahma ma Rio Bio kon yow mi seetaan ak déglu bu ko tàyyi ñoo ngi tëngee sonal di si wetu pharmacie Astel wala nga ñëw si wetu pharmacie Cora téléphone bi 78 014 41 41 wala 77 244 90 05 savon lumière lumière ci savon bi mooy saabu boo xam ni sangoo ko am lumière bu sax.